asalaamaaleykum wa rahmatullaahi kurus boo jàppee benn per boo yëkkatee per yëpp a cee topp muy al husna allahuma saburu am nañu koy def téeméer waaye juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent liñ ci jublu mooy asmaullahi al husna وتلك الشيخ أحمد بابا خادم رسول وخمي مد لي الحسنى مجرون ينفكي أجرون ينتوين ومد لي زيت من يقول هكذا قبل مهديات man cheikh gàcce nga la ma yéen ay ndaw ngeen gis nañu fi jamono ko gis nekkal ci bi ko gis waaye ku tedd gi sama moo daan ci ñëw assalaamu ala man ittaba'a al-huda jàmm bu dee ab dëkk dafa am yoon mu fa jëm assalaamatu wal afiyatu tatta wala daani la wax fi dunya wal axira ba ak sérénité bi koy maye ci àdduna ak al axira mooy niyatul xayr fi'lul xayr qawlul xayr niyatul xayri wa xawlil xayri wa fi'lil xayri yéene lu baax di ko wax di ko def doomu adama ba wut jàmm ci kenn mbaa lenn mbaa fenn na jéem wut jàmm boppam ba noppi dafa am jàmm am jàmm xal am jàmm gis nan lay amee jàmm ci boppam dafay tàmbalee ci ruuxam ku ne xam na ne ruux waxtaanee la moo koy suuxat bu dee garab xel mi dafa soxla jàmm xol bi soxla ko yaram bi soxla ko lamañ bi soxla ko. nopp yi soxla ko maanaam kër bu nekk dafa soxla jàmm kër bu nekk dafa am na koy jàmm waaye ci doomu aadama bi nan la koy tàmbalee ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul wa'tasimu bi hablillahi jamii'an wa laa tafarraqu ñu ñu ko firiiree ci werdul maxuus boo demee werd bi yépp a kon kooku moo njëkk a wane ni fédérateur la danañ joxe werdu Tijaan di joxe werdu joxe werdu Chaadir werdu yépp la daan jox kon defe naa ni werdu maxuus war nañ koo xoolaat bu baax a baax la wér yépp la bu loolu amee nit ki ci ni muy yare boppam mooy ni di lekk tuuti di nelaw tuuti di naan tuuti di jaxasoo tuuti fekkee jàmm yi yaram la bëgg bu dee nag li invisible ci yow ci diggante ruux yi ak xol bi ak xel mi loolu moom da ngay ñemee méditation wadalitullah bu jàll da ngay ñemee ay salawaat di ñemee wéet di ñemee concentration ci tur yàlla bu mën a doon rek am na lu muy servir doomu adama allahu ba sabbu bu ko defee nit kilifa yi dañu fay nekk te dañu maa ñaan ma ubbi leen rek ngir li ma war a jëm ma bëgg rek wax dëgg yàlla ñu bañ a yem ci jàppale maam Cheikh yi nga xamante ne bii doom la di nga xamante ne bii sant yàlla ci bi mu ko fi mu ko ba noppi li nga xamante ne bii la maamam di tasaare ci ñëpp di ko tasaare ci lislaam mu jot li mu ci jot ba loolu mën a tax mu taxaat def lii kër diine ku nekk mu dugg fa wut fa benn membre boo xamante ne bii ñu taxaw ngir dengan wax tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ndax xam sama wala ne jamaat lu ci bàyyi ba mu ne wàccaan kullu bana handa tawa dubi da jate gira tana zuhin wala tahasudi wala tahasumi wala tadabburi wala tabaghudin wala tanafuri foofu ngeen nekk kon ñu jàngee ne diine rek li war a jàppale bi di leen war a jàppale borom xam-xam yi di leen war a ñi nga xamante ne bii mane gan dañ leen war a jàppale économiquement financièrement ci mën a sori ndax kilifa yaa ngi nii eh, Seydina bi ci sama wet waa kër Cheikh Abdoul Aziz sëñ bi ñëpp ngi fi ba mën a lim ñëpp waaye ñu leen di xamal ni daal wàññi boo gis ñaare ci benn lay tàmbalee waaw boo ko tax siiwul wàññi boo gis benn lay jàmm te tàmbalee defe naa ni mu demee nii bu benn yoon rek ngeen koy defar dina gën a yaatu waaye rek bi ma waxee alwaytul mahfuus ba noppi te Sëriñ Tuubaa daan si ñëw salaamu alaa man ittaba'a al-hudaa gis nañ ci it nii de mu wax ni yàlla anta salaamu allazi sallamta kulliya min uyuubi nafsi bi tayyin minka ya Allah tey ma xam ne bàkkeel ndax malaaka yi dañ koy jël kuyu ko arach kon ci bay boobu ci itti nii ca leer ga ca barke ba taatam ndax itam nag lu yëngal aar sañu ci dara kon nañu ñaan ci bis bi tey ci barke bay boobu ngeen am kita ngeen am ndaw bu ñu am rek ci tasawuf nag tasawuf mooy sellal te ñëpp sellal ñu waaye nag ku tedd allah am xaw ba ne wala Bila a berkata, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gracias. Estamos com o Dr. Mourinho, citado em meu interior, e na parte político, ele é político do futuro, não sou mais. Fala, fala. Tripe, tripe. Tripe. dañu dañu lim délégation bi yëpp nag ndax tey ci nekk biir nañ la day bàyyi nañ sa tur ci ñi nga xamante ni ñoo ko wàññi ci bu séeréer bi ñu joxe ci soo ko awee léegi balaa ngeen danañ